Talla Fall ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay waa réew mi. ma fàttali ni yow yaay directeur de communication académie génération foot. football nag euh, ay weer a ngi ni lépp daal di taxaw jamono ji académie bu mel ni génération foot naka la koy dundee. waaw nu ñu koy dundee lu métti la parce que loo xam ne la kenn sóoraale ko woon la. donc dina xaw a yëngal euh, toogaay beeg euh, taxawaay. donc vraiment metti métti nañ ko lool ba pare di ci jaale waale suma benn grand bu ma ci xamoon mu muy grand Pape Diouf vraiment nekkoon suma nit nekkoon suñu modèle donc euh, ci wàllu football ci ci ci ci ci ay wàllu analyse wàllu management donc nit la koo xam ne vraiment fu fu ñu jege woon la et vraiment ñu ngi koy jaale vraiment Sénégal yëpp di jaale ñu génn àdduna ñëpp vraiment yàlla na ñuy feebar aussi yàlla na leen yàlla yëkkati ci jàmm. bu ñu ñëwee nag ci actualité bi mooy dogal bi fédération jël euh, nekkoon championnat bi dañ koy wëyal ci weeru novembre waaye nag dañuy soppi anam ñu ñu koy defee format bi play off play down lay doon loolu mu mel ni ñu bëri ànduñu ci bokk na ci euh, génération foot lan moo waral loolu. waaw li ko waral mooy que xam nga dafa dafa am décision yoo xam ne ci wàllu football boo koy jël dafa laaj nga dajale acteuru football yi nga waxtaan ak ñoom discuter ak ñoom parce que du doon décision boo xam ne dafa simple pour jël ko parce que boo décidé ne da ngay def play off play down rek dafa fekk nga war a mën a respecter ku nekk li nga xam ne moom nga ko dénk parce que play off play down dafa doon loo xam ne c'est pas évident ku nekk war ko mën a accepter parce que ñun tey li ñu gënaloon boo xoolee championnat bi ak fi mu toll ci phase retour donc mooy li nga xam ne dañ ko war a mën a jouer waaw dañ ko war a mën jouer parce que treize journées rek moo ci desoon donc treize journées li ñu mën jouer la léegi nag li ci am mooy que boo supprimer coupe du Sénégal supprimer coupe de la de la ligue dindi yooyu yëpp alors que coupe du Sénégal ñu ngi nekkoon ci quart de finale coupe euh, coupe euh, plutôt coupe de la ligue ñi ngi nekkoon ci quart de finale coupe du Sénégal soo na six journées dana hmm. léegi yooyu yëpp du am donc léegi dañuy focaliser wu ci li nga xam ne moom mooy championnat bi donc à partir de ce moment am na décision yoo xam ne boo koy jël da ngay woo ñi nga xam ne ñoom ñooy acteuru football hmm. président de club yi nga xam ne ñoo yore seen club di ko doxal hmm. tant bien que bas ak ay moyens yoo xam ne yu limité mais donc ñooñu da nga leen war a concerter discuter ak ñoom wax ak ñoom ne léegi nañ leen seet ban formule mooy formule bi nga xam ne mooy bi gën ba nga xam ne buñ ko tegalee ñëpp ku nekk dina ko mën a accepter à partir de ce moment décision bu ñuy jël foofu rek dafay yomb mais bu fekkee ne waxook ñenn ñi ba pare daa di ne dama woote sama benn comité d'urgence ñooñu ñoo décider ne lii mooy am donc léegi ñu ci des nañu plié wu ci loolu mais loolu du mën a parce que mënoo hypothéquer avenir benn club ci ay benn décision boo xam ne ci fait pas l'unanimité parce que tey boo jëlee ci exemple équipe bi nga xam ne moo jël deuxième ak ki jël huitième hmm. six points moo nekk seen diggante six points alors que y a points à pouvoir prendre six points léegi yow nga bëgg kii di jouer play down kii jouer play off loolu noo ko donc loolu tax na li nga xam ne tey ñun ñu jël ko def ko un combat de principe. Hmm. waaw du seen position moo ko waral du position classement génération foot. non non du tout bu ñu nekkoon playoff duñ ko joué duñ ko joué encore une fois. Hmm. parce que playoff ak play down loo ci mënti def dafay doon loo xam ne ku nekk ci part à chance égale hmm. mais mënuloo ne tënkee ci conserve tes points. ba pare léegi ne yéen ñi ci des nag bon ku nekk li la am ngay am mais play mais Tëngéej bu joué ñaari match gagné mu jeex <laughs> léegi li fa def ay match de gala lay doon lan lañ fay joué lan lañ fay joué amul leneen luñ fay joué léegi pendant ce temps là nag ñeneen ñi nga ne leen yéen allez vous sacrifier yéen dem leen reyante ji ah foofu pour mën a maintenir seen position non quand même c'est manquer de respect aux gens quand même am na am na décision yoo xam ne boo koy jël da ngay wax ak nit ñi da ngay waxtaan ak nit li nga xam ne moo jaadu woo li nga xam ne ñooy président de club yi fii ñun ñëpp xam nañ ne football professionnel bi ce n'est que de nom président de club yi c'est des chefs d'entreprise c'est des responsables de société xam nga ay kilifa lañu dañuy hypothéquer seen lépp parfois pour mën a fay salaire yi respecter yenn engagement yi fii ñëpp xam nañ ne amuñu droit de télé amuñu dara donc as néew li nga xam ne moom la Sénégal bi am ci CAF ak FIFA loolu ci la ñuy yaakaar ak qualification wu Sénégal coupe du monde ak ak ak ak qualification wu Sénégal coupe d'Afrique lu hmm. mu gën a soree ci jongante bi xaalis bi di gën a bare pour nit ñi mën ci am yaakaar hmm. Hmm. donc à partir de ce moment yu mel noonu su amee et comme le di souvent Augustin Senghor que ne le football reste un et indivisible nit ku mel noonu boo waxee lu mel noonu mais da koy jëfe daa di yi kaale ñu toog ñu waxtaan lii moo am léegi lan lañu ñu war a def ñu discuter ci ku nekk joxe sa point de vue ñu xool bi ci gën ñu adopté ko bu boobaa wax du am parce que boo nekkee njiit ak Augustin image bi muy jox nit ñi ak man ni ma ko xamee yaakaar naa ne boog tey waroon na mën a woo ku nekk wax ak yow ci président de club ne lii moo am loo ci xalaat hmm. parce que moom président de club la traditionnel xam na li muy dund yan yan galère lay jaar ñaata at yàlla mi ngi nii nekk gore ñu bëri ñu ngi bañ mais moom euh, finalement menacé na ñi nga xamante ne euh, nangoo ñu euh, jouer format bi loolu xam nga Augustin daf soog noonu rek mais xam naa ne bu toogaatee ba xelam yedd ko hmm. dina ne ne xëy na dama juum erreur la man xam naa Augustin tuuti nag hmm. xam naa ko bu baax te yàgg naa ko xam yaakaaruma ne ne ne dafa jël décision bi ba pare te wóor na ma ne ne am na ci regret hmm. parce que man Augustin xam naa ko ba nekkoon na sax euh, avocat génération foot hmm. donc xam naa ko bu baax xam naa ay frère xam naa ko bu baax laa mën a wax ci gore laa ko xamee waaw donc am na ci yoo xam ne nag tey bu ko jëlee ba pare defe naa ne xelam dina ko yedd mu dellu siwaat xam nga daa dina kat xëy na lii erreur la war nañ ko mën defaraat ba nga xam ne tey ñu war a mën a jouer parce que tey boo xoolee du génération foot rek tey boo jëlee Casa Sport d'accord port d'accord euh, Mbour Petite Côte d'accord ñaari tali d'accord euh, ñambur d'accord hmm. mais boole ci club national yi club Ligue 2 yi huit yoo xam ne Wakaam et tant d'autres yoo xam ne la la yow ci sa discours toujours da nga yàgg di naan le football reste un et indivisible donc lu mel noonu vraiment waroo mën a diviser nit ñi et surtout que moom dafa yàgg di wax ne damay bàyyil football bi héritage parce que après trois mandats yaakaar naa ne tey comme moom ni mu ko tàmm di waxee héritage bi lay gën a xalaat lan la fiy bàyyi ci ginnaaw mm-hmm. donc nag booy bàyyi si ginnaaw da ngay bàyyi si ginnaaw mu oyof mu sedd ba nga xam ne vraiment nit ñi bu ñuy dem wala buñ ko doon jàppale ji sax ñu war a mën a dem nekk di kaas ñun ñëpp dañ ciy topp jàppale ko accompagner ko ba nga xam ne tey ndamu Sénégal lay jële foofu waaw parce que dañ naan expérience am ci football sénégalais ak expérience am sur le football mondial war na ko may tey mu am ambition wu ne man dama war a jiite kaas Hmm. Après 12 ans passés à la tête du football sénégalais, l'idéal, ce serait que nga dem nag daal di dem jiite ji CAF donc je pense que hmm. tey bu waxtaan ak ay mbokkam waxtaan ak ay xaritam waxtaan ak ay am di jàmmam defe naa dinañ ne ko Augustin bii da nga juum d'habitude tu prends souvent de bonnes décisions mais bii da nga ci juum nag waaw te nit ku dul juum amul. bu weesoo loolu mu am tamit ci wàllu koppar lu mooy lu ñu jël décision ni kon dañuy jàppale euh, club euh, club yëpp. Ligue 1 ku ci nekk dina am euh, juróomi million waaye ñu gis ni diggante génération foot ak fédération temps yi coowal xaalis am na ci euh, kii di président génération foot joxe ay chiffres fédération bi ci boppam weddi ko joxe ay chiffres yu mat euh, ci lim leen jàppale diirub ñaari at yi loolu lan nga ci jàngatee finalement kan nañu mën a gëm. waaw non du question ñàkk gëm ak gëm xam nga maa di dañ ko ko laaj sur un plateau. yorewul woon assez d'éléments pour pouvoir dire lañ ma jox lii lañ ma joxul parce que loo xam ne biñ la koy jox ak léegi ci sa participation coupe africaine yépp la mu mun te joxuñu la ko d'un seul trait nañu bu ñu fàtte loolu mun nañu ne sur une saison on a peut-être reçu maa te li mu wax lu leer la dafa ne dix millions et plus mais ba léegi weddiwul ne dañu ñu doon jàppale chaque année saa yi ñu demee compétition africaine donc loolu bu ñuy jaawaatle mu fekkee ne nag léegi Victor moomu génnee papier bi man moom laay waxal bu fekkee ne dafa génnee papier bi pour mën a leeral nit ñi leeral bi des na parce que li mu bind foofu di wax naan moom la ñuy jox commissaire de match billet d'avion ak euh, seen euh, hébergement seen restauration seen déplacement seen lépp je pense que ne loolu bi mu koy bind dafa fàtte ne kaaf dafa jublu woon ci loolu parce que dafa bañ corruption bi am ci arbitre doon continuer parce que fii ñun ñëpp gis nañ ko ah Afrique à chaque fois que ñuy naan jàpp nañ kii corruption jàpp nañ kii corruption loolu du lu du lu bees mmh. léegi nag pour éviter corruption boobu ñuy wax fépp fu ne ñu ne léegi club yi dootuñu am contact ak euh, arbitre donc bu boobaa léegi fédération yi dañ leen di jox seen plan de vol ñoom ñoo leen di yónnee seen ay billets d'avion ñoom ñooy toppatoo lépp mmh. et puis bu boobaa CAF daf leen di rembourser day rembourser fédération donc léegi kon ñoom dañu bañ nit ñi di qualifier pour dem coupe d' Afrique boole ba war a mën a jouer ji ay match je pense pas ne loolu jaadul donc buñ ñu ko buñ ñu ne dañ ñu ko jox joxuñu ñu ko c'est quarante neuf millions laa ñuy wax ne moom la ñu la ñu fay mais CAF da leen koy rembourser te man ma yokkal la ci leneen ñoom ñi ngi wax ne donc dañu dañu fayal lii dañu defal lii dañu defal leneen mais engagement yi ñu jëloon. par rapport ak coupe euh, cinquante millions yi nga xam ne dañ ñu ko amel parce que deux mille dix sept bi ñu nekk jëlee titre champion dañuy amel vingt millions deux mille dix sept deux mille dix huit hmm. deux mille dix huit deux mille dix neuf dañu nekk vice champion hmm. ñu amel ñu dix millions deux mille dix neuf deux mille vingt ñu nekk champion ñu amel ñu vingt millions muy cinquante millions non gis nga ko ci feuille bi. ah gisuñu ko de. non cinquante millions yi kon leer na la décompte bi ma la jox leer na la parce que nee nañ la boo gagné titre champion tu as droit à vingt millions. Mm-hmm. donc deux mille dix sept deux mille dix huit ñu fay ñu euh, amel nañ ñu vingt millions. Ligue Pro moo ko waroon fay fay ko deux mille dix huit deux mille dix neuf ba léegi fay ñu ñu deux mille dix neuf deux mille vingt ba léegi fay ñu ñu muy te ba ah, xam nga léegi. Mm-hmm. xam nga xam nga am na lu xel mën a nangu. Mm-hmm. xel mënul nangu parce que ñun ñi nga xam ne muñ nañu pendant trois ans ñu ameel ñu cinquante millions te ba léegi ah demuñu di leen ko clamé ci fen donc lu dul di ko jàmbat te ñoom ñu xam ne ñoom ñoo jël engagement fayal dette bi nga xam ne moom la football ligue pro amee ci yenn club yi ñoom ñu ne daa koy dañ koy fay mais lan moo leen ko tere fay leeral booy leeral da ngay leeral mu mët da ngay leeral ba leeral fu amul dara loolu mooy transparence ci wàllu génération foot nag ñu gis ni ren ji gannaaw sax ba ngeen yéege yéeg bu gaaw ci Ligue 1 bu football atum 2016 2017 la ba léegi yéen ngi nekkoon di yu am solo bokkoon nga ci club yi gën a fës ci championnat bi boobu ak léegi ngeen min lool compétition africaine yi léegi sax waaye ren ji ñu gis ni mooy seen saison bi gën a niiw ah ba ngeen yéegee ci élite bi ba léegi yéen a ngi resté ci ba du tableau bi loolu lan moo ko waral ban explication nga ci indi. xam nga explication bi koy indi mooy que. bi ñu paree euh, ci championnat bi. defe naa dañuy lu noppalu lu bi ci war. même pas trois semaines daal di reprendre enchaîner pour préparation Coupe d'Afrique. donc on a fini au mois de juin. ci championnat ba. donc mois de juillet reprendre ñu mois d'août ñu commencé waat jouer compétition africaine. donc je pense que ne de match yooyu. yi def lu rëy dem ba mën na ñu réegaloo ci mën a éliminer un géant d'Afrique boo xam ne ñëpp ku nekk def ñu doon wax ne dag leen di gagné dañ leen di gagné zamalek xajul ci ñii zamalek ñii zamalek naa zamalek na leen mais bi ñu jógee Libéria di ñëw fii di jouer suñu match retour ci compétition yooyu vraiment les Sénégalais y croyaient mais zamalek bi moom seen yaakaaru koon et donc vraiment on a fait ce qu'il fallait faire donc euh, ñu jóge war a joué waat xam nga toog yooyu yëpp am ci problème yi ñu amoon sur le plan administratif daal di ci yokku et puis après il y a eu le sentiment de déception hmm. vraiment pour notre élimination des deux coupes comme pour la Ligue des Champions comme pour, la Coupe CAF hmm. donc loolu dafa bàyyi ay séquelles ci xale yi bàyyi na ci ay séquelles parce que boo xoolee sur le plan psychologique xale yi affaire boobu des na trop ci ñoom parce que boo xoolee intensité yi ñu daan joué sunu match yi impact physique bi ci daan am yooyu yëpp après gisutuloo ko ci woon donc daf lay won ne équipe bi am na benn moment boo xam ne euh, amatul woon doole bi mu waroon am et donc loolu nag xam naa ne topp na leen ba benn instant et puis football mooy doute hmm. bu confiance nekkutulee bu fa doute installé woo rek hmm. donc da koy sentir donc loolu ñuy perdre quatre à cinq matchs à domicile chez nous hmm. loolu musul am ci histoire génération foot hmm. donc loolu bu demee ba am rek c'est parce que boobu le mal était vraiment profond et donc ci la ñu toogaat defaruwaat waxtaanaat ak xale yi ba boo seetloo vraiment dernière prestation yi ñu am avant ñuy arrêté l'équipe mu ngi commencé donc dellu siwaat dellu siwaat sur un bon niveau on a commencé di retrouver yenn joueurs yi nga xam ne euh, sur le plan mental affaire bi xam-xam idi yooyu yëpp desoon na ñu ngi leen doon commencé récupérer waat ndànk-ndànk ba yooyu yëpp taxoon na ba nga xam ne ñun ci deuxième phase bi yaakaar nañ ne waroon nañu mën a def loo xam ne aussi tamit dinañu mën a dellu siwaat ci niveau bi nga xam ne moom la ñu nit ñi xamee hmm. parce que repos bi dina fa nekk xale yi ñëpp ngi fi suñu élément yi nga xam ne ñoo nekkoon en baisse de forme ñoom ñëpp repos bi ça leur a fait du bien te yaakaar naa ne bu ñu dellu siwaatee pour waroo mën a jouer dinañu gis beneen ñu ngi lay gërëm bu gërëm yéen it di leen euh, jaajëfal ci euh, invitation bi ci échange bi ñu jot am. mooy fàttali ni yow ya euh, directeur de communication académie Génération Foot.